ñetti fan yëpp Sénégalais yëpp dégg nañ ko mooy lu xew fële si hôpitalu Louga muy amadu Amadou mbay Mbaye soxna ju tudd asta astu soxna euh, ba muy euh, donc euh, duggee sa hôpital bi pour war fa am doom suñu boroom dogal bakkanam des fa mu nekk loo xamante ne Sénégal yëpp ñaawlu ko ba ko déggee nag la ñu fa envoyé ñetti inspection inspection bu ñëk bi moy inspection administrative nga xamantene inspecteur bi nekk fii ci département santé mom ak ay équipe am ñom ñoko wara def inspection bi inspection boobu direction bi yoré lépp lu jëm ci jigéen ak xalé mais aussi direction bi yoré hôpitaux

ba ñu defee ñetti inspection yooyu ñetti mission yooyu tey nag comme que indi leen rapport yi li war te jaadu mooy ñu ñëw devant l'opinion devant sénégalais yépp pour wax leen inspection yooyu lan lañu indi comme information pour que sénégalais yépp mën ko xam bon nag ma jéem a leen wax lan moo nekk ci rapport d'inspection yi li ñu mën a jot mooy que ne madame astu Sokhna yàlla na ko suñu boroom yërëm yóbbu ko àjjana ba muy ñëw euh, hôpital ba ñu ko xoolee gisuñu en tout cas benn feebar boo xamante ne nekk na ci moom pour mën ko faagal ba mu ñëwee hôpital nag seetlu nañ tam bi ñu xoolee dossier que ne ñetti at sa gannaaw defaloon nañ ko césarienne ba ñu ko defee césarienne yàlla def na euh, bébé bi mu ki woon mu ba mu ba mu àndaloon yàlla jël ko loolu césarienne boobu mu ngi am le 30 mars 2019 à 4 heures 40 du matin loolu nekk na ci dossier ñu wax ne madame Astou Sokhna bañ ko defalee césarienne ba bu pare lépp lu waroon ci faj jëm ci cardiologie wala wàllu roño loolu yëpp def na ko loolu dafa bokk ci li xamante ne dafa war boo defee césarienne pour que ñu mën lu suivre bon nag mën nañu wax ne le 28 mars 2022 ba madame Astou soxna di ñëw hôpital amul woon dara loo xamante ne nekk na jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ba mu ñëwee le 28 mars 2022

foofu itam gisuñu fa dara loo xamante ne war na mën a indi donc tolof tolof l'émission bi conclure mooy que ne tolof tolof bi ñu ngi ko seetlu ci structure sanitaire si ci niñ ko effectivement jëlee ci biir hôpital bi loolu nag ci wàllu diagnostic bi lañ ko seet donc ni saytu bi des na mais aussi ñu seet ko ci wàllu prise en charge bi ak surveillance bi

dañu ko considérer comme un décès maternel évitable à travers une bonne évaluation du risque c'est-à-dire bu ñu ko toppatoo woon bu baax ci diagnostic bi évaluer risque bi ba pare surveiller ko bu baax gannaaw suñu borom astu soxna doon na mucc ci situation boobu nag il fallait que nous jël ay décision décision bu nous bi ñu jël mooy que nous ñu suspendre directeur hôpital bu ngeen seetloo conseil euh, des ministre bi ñu def démb jël na ndogal boobu pour euh, dindi directeur hôpital bi indi fi beneen directeur bu tudd Abdallah Gueye en parenthèse d'ailleurs Abdallah Gueye boobu maa ngi ko fekk mu nekk directeuru hôpitalu Pikine bi ma fi ñëwee en 2017 moo nekk directeur hôpital Pikine Mais 2021 mars 2021 mai 2021 plutôt que indi ko renforcé mu nouvelle direction générale des établissements de santé bon donc euh, c'est une information extrêmement importante parce que 2017 je suis ñëw fii ko mu directeur u et je suis suis dit qu'il n'y a pas longtemps en mai 2017 ma indi je mu renforcer une nouvelle direction générale pour nga compte tenu de sa compétence et de son sérieux loolu élément d'information là pour quand même mettre de côté yenn fake news yoo des fois man na jaxé xel euh, bi benen décision biñu ñu jël mooy si biir hôpital bi képp koo xamante ne agent la da nga newoon si dispositif bi xamante ne moo doon toppatoo astu soxna ñu jël la dugal la si benn procédure boo xamante ne disciplinaire boo xamante ne hôpital bi moom moo koy euh, conduire ñooñu nag hôpital bi dana xool seen biir procédure bobu mën na dem jusqu'au licenciement parce que en vérité li ñu def dafa déboucher si donc fat bakkan benen élément bi am solo té ma bëgg ko noter moy que li xew si walu astu soxna nek na lu Sénégal lépp ñaaw nek na lu ñu regretter ñun ñëpp nek na lo xamante wax dëgg yalla donc du luy taaral suñu système wala ndëkk

mais occasion pour pour que nous ñaax leen ñu gën a jàpp parce que seen taxawaay Sénégal yàgg na ko pour terminer que le Sénégal dafa def ay performance am solo mortalité maternelle et néonatale Je xayma bi xamante ne dañ koy xayma réew yi di ban am situation yi ñuy moy digène bakanam dem ci walu donc ndior lolou ndëkk dafa nek indicateur OMS indicateur bu am solo Sénégal ndëkk tay ci sous région bi UMOA mom moo fi juutu si indicateur bop mom moo fa gën a nekk parce que 2019 ñi ngi doon tourner l'indicateur indicateur maintenir xamantene 386 naissances euh, décès pour 100 000 naissances vivantes mais en 2019 nous avons ci 276 décès 236 décès pour pour 100 000 naissances vivantes gis ngeen évolution bu am solo am bon continuons effectivement ces efforts, mais mais ñu ñaax personnel de santé et d'action sociale pour que performance ak njàmbaar bi leen je vais terminer si un élément d'information pour am parce que en plus effort de ñu ressources humaines je continuer à faire effort si li structures si ak structure de santé Ce cadre là l'a annoncé d'ailleurs que l'hôpital aristique de Dante projet ou état bi sur instruction président Macky Sall moins que le tabaxaat ko totalement L'autre élément pour am c'est si si ay fan yu danañu effectivement donc am benn rencontre Certainement, le certainement chef de l'État m'a dirigé pour que nous xool une modalité a une pour que reconstruction hôpital Dantec du mën nous donc lors de la nous, les remercier encore une fois di wax nos services sont à votre totale disposition ici au niveau central comme au niveau des structures pour indil donner toutes les informations qui concernent le système de santé Merci.